bu leen fàtte abonné ci seen chaîne Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen seen ci seen écran. ndaxte dama koy fàttali manifestation bi nga xam ne ñun doy na ñoo ko convoqué li ko taxoon jóg mooy rendre audible rendre visible les difficultés de plusieurs citoyens sénégalais les citoyens sénégalais de la Sigelec les citoyens sénégalais de Serpem les citoyens sénégalais. euh, des impactés du terre Rufisque, les citoyens sénégalais de Terme Sud, les citoyens sénégalais de la Fédération nationale des distributeurs de pain, les citoyens sénégalais de Tiawan les citoyens sénégalais de la cité Claudel, les citoyens sénégalais de Guéréo, les citoyens sénégalais de Kignambour, les citoyens sénégalais de Kermousse, les citoyens sénégalais que sont les bacheliers non orientés, les citoyens sénégalais que sont le cercle des étudiants non orientés dans le privé, les citoyens sénégalais que euh, sont en fait ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñaa gis te ñett wala ñeent ci ñoom nekk ca kaso bu Casamance ñu leen di bàyyi xel les citoyens sénégalais du Bosséya ak ñoom seen les citoyens sénégalais de Baba Garage les citoyens sénégalais de ABS les citoyens sénégalais de Excelec les citoyens sénégalais de Kër Sambakan Cigelec, Cigelec. les citoyens sénégalais de la Cigelec. les citoyens sénégalais du PACAO. notre objectif moo nekkoon de rendre visible et audible en étant ensemble en étant uni en étant fédérés toutes nos revendications yi nga xam ne président Macky Sall dafa mel ni déggu ko président Macky Sall dafa mel ni gisu ko moo tax foog ngeen féliciter seen bopp tàccu seen bopp dinañ ko def defaat ko defaat ko ba keroog ñun ñëpp suñu ay revendication sotti te mën na nekk lii wane ne mën na nekk suñu mbokk travailleur de PCCI yi nga xam ne ñetti at ñu ngi ànd ak ñun ñuy xeex di bëre di daanu di jóg di bëre di daanu 145 travailleurs yi nga xam ne dañ leen ameloon 14 mois dax d'arriéré de salaire fay nañ leen ko kon ndam mën na nekk kuy bëree daan jàppale seen bopp kuy bëree daan kon boog nañu ànd bëre nañu ànd ngemb nañu ànd laxasaayu sama wax du gudd ndaxte yéen wax ngeen lépp sama wax du gudd ndaxte marche bi nga xam ne marche bi nga xam ne moo ci topp moo gën a am solo li ma bëggoon commencer mooy document yii document yii ngeen di gis sama papa Alassane Anne yéen waa terme sud document yi naa leen ko jox bu ñu paree marché bi ba pare ndaxte document yi daf leen concerné document yi mu ngi jóge ci ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique naa leen wax lan moo tax document yii concerné leen yéen waa terme sud depuis xeex bi bu mu commencé yéen waa terme sud déggu leen ministre Abdou Karim Fofana wax ci yenn et pourtant document ministère am la mu ngi wax ci yéen mu ngi wax ci terme sud mu ngi wax ci seen suuf xam na ñaata ngeen ñaata famille ñoo fa nekk famille bu nekk ñaata jigéen ñaata góor ñaata ndaw li tax document yi am solo li tax document yi am solo parce que document yi document yi la yoo xam ne ñu ngi ko programme zéro bidonville ministère de l'urbanisme bu Abdou Karim Fofana moom moom document yi ci document bi programme zéro bidonville dafa am ay phase première phase bi la première phase du programme zéro bidonville mu ngi naan elle concerne les quartiers de Terme Nord de Terme Sud à Ouakam et de Taïba à Grand Dakar ci document yi ñu ngi naan l'objectif est de bâtir dans ces trois quartiers terme nord terme sud ak Taïba des immeubles R plus 4 au moins ci document yii dañoo bind ne gouvernement du Sénégal dafa bëgg a tabax 3200 appartements à commercialiser à terme sud xam ngeen ne mosu leen dégg Marco Marco yaa ngi may dégg bi affaire bi commencé ak léegi déggu leen président Macky Sall wax leen document yi déggu leen Abdou Karim Fofana wax leen lan mooy seen mëbët ci terme sud. déggu leen Sidiki wax leen lan mooy seen mëbët ci terme seen mëbët ci terme sud mooy dañoo jàpp ne yéen 79 familles de terme sud fi ngeen dëkk ay bidonville la te seen objectif mooy zéro bidonville seen objectif mooy dàq leen fa. tabax fa 3200 appartements à commercialiser la taille des appartements 50 mètres carrés 75 mètres carrés 100 mètres carrés 120 mètres carrés c'est ça la vérité la vérité mooy lii ku leen fan ay fan ci ginnaaw on vous avait dit armée mi nga xam ne dafay làqatu ci ginnaaw Comico Comico 3 hectares la am lan moo tax muy dàq ay population ñi dëkk foo xam ne treize hectares la bu dee le euh, euh, euh, le chef d'état-major général des armées nee na comico moo ko tax a jóg te comico trois hectares la fa am lan moo tax muy dàq treize hectares en réalité c'est ça le projet le projet c'est un projet de zéro bidonville le projet c'est de bâtir des appartements sur le sang et la sueur des familles de Terme Sud te du dëgg du yoon du dëgg du yoon duñ ko nangu moo tax ñu ne doy na document yi yéen waa terme sud document yii yéen Marco yenn sama baay Al Hassan Hann naa leen ko jox il faut que Abdou Karim Fofana mi nga xam ne dafa mel ni dafa muuma subitement mu jox ñu ay explication il faut que le président Macky Sall jox ñu ay explication donc c'est à cause de 3200 appartements à commercialiser pour am si ñoom ay intérêt moo tax ñu dàq comme ay xaj 79 familles loolu ñaaw na. damay gërëm policiers yi nga xam ne ñoo fi nekk di ñu aar depuis tey si suba nar ñu aar ba RTS waaye policiers yooyu laa bëgg a waxal bu ñu moytuwulee li dal waa Terme Sud dina leen dal yéen policiers en activité yi suba bu ñu moytuwulee liy dal waa Terme Sud dina leen dal. yéen militaire en activité yi bu ñu moytuwul lii dal waa terme sud dina dal ñi nga xam ne ñoom ñooy gendarme en activité yi moo tax dañoo war a ànd ne ñoo lank ñoo bañ au moment où je parle nag am na benn militaire le sergent chef Ndiogou Gueye mi nga xam ne dañ ko mettre aux arrêts parce que tout simplement dafa lank ne mënul nangu ñu génnee ko terme sud dañ ko mettre au arrêts nous exigeons la libération du sergent-chef Ndiogou Gueye 15 mois moo ko dese pour mu dem retraite nañu bàyyi papu jàmbur nañu bàyyi jëkkëru jàmbur nañu bàyyi bàyyi jàmbur loolu bu noppee bu ngeen gisee lii nga xam ne moo fi dajale lii nga xam ne ñoo fi wax ay liggéeykat ñu ngi ci ay liggéeykat yu ñu amal payoor ay liggéeykat yoo xam ne dañoo salfaañe seen sañ-sañ ay liggéeykat yoo xam ne dañ leen tere ne seen mbër bu liggéeykaay du am syndicat ay liggéeykat yoo xam ne dañ leen licencier arbitrairement may laajte waaw réew Sénégal ndax am na ministre du travail état bi Sénégal ndax am na ministre du travail wala ministre du travail bi jàngoro Macky Sall le lion qui dort moo ko dal moom itam muy nelaw te damay fàttali ne le ministre du travail est membre d'un parti qui s'appelle parti de l'indépendance et du travail ba pare c'est un parti qui se réclame du communisme et jamais les travailleurs n'ont été aussi exploités aussi piétinés aussi aussi bafoués qu'aujourd'hui où il y a un ministre communiste loolu ñaaw na ñi fi nekk mbiru suuf moo leen indi coronavirus am na waaye dafa mel ni corona suuf itam am na de. coronavirus nañ ko moytu waaye corona suuf tamit nañ ko xeex de. waaye itam ñi fi nekk déguerpissement moo leen fi indi itam fekk la sa kër ne la dinañ la fi jëlee jëlee la fii mooy waa terme sud waaye bu ñu moytuwul li dal waa terme sud. moo nar a dal waa moo tax ñu ñëpp nous devons nous mobiliser pour ñu respecter les droits de Terme-Sud sinon ëllëg ci Kounoune la jëm te loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ñi fi nekk itam mbiru enseignement supérieur moo leen fi indi plus de 1300 bacheliers de 2019 ba léegi kenn orienté wu leen ren on a 70 000 bacheliers am nañ ci tiitaange de ñun waa doy na bu dee 1300 bacheliers de l'an passé n'ont toujours pas été orientés ah am nañ ci tàng ci les 70 000 nouveaux bacheliers de cette année et ça nous permet d'avoir une pensée pieuse à l'endroit de Joël Aï étudiant bi nga xam ne dañ ko faat ndax ñàkkum kaaraange yàlla na suuf woyof ci kawam ñu ngi réclamer justice pour Joël Aï ñu ngi réclamer justice pour la famille de Joël Aï waaye tamit foog ñun askan ñu xam lan moo tax enseignement supérieur am jàngoro bu dee li nekk ci Sénégal téeméer boo jël ñett moo fiy toog juróom moo fi toog du ñu am xaalis bu doy pour am université yu doy du ñu am xaalis bu doy pour am ay enseignants yu doy moo tax Sénégal il y a un enseignant dans le supérieur pour quarante étudiants alors que la norme c'est un enseignant pour cinq étudiants donc fokk ñun askanu Sénégal ñu xeex pour Sénégal moom boppam suñuy baay ak suñuy yaay yi nga xam ne ci année 40 50 60 70 ñoo doon xeex moom sa réew tey moom sa réew tamit moo ñu war ngir alalu Sénégal jëriñ askanu Sénégal et non alalu Sénégal di jëriñ doxandem yi nga xam ne ñoo jóge bitim réew. Nous avons aussi une pensée pieuse pour les victimes des violences policières mbokk yi ki nga xam ne moom la violence policière mujjee gaañ. mooy Adja Ndiaye Adja Ndiaye wax naa leen ko sànq lu ëpp fukki fan ngi mu ngi hôpital policiers yi dañ ko dóor dóor dóor dóoraat ba mu am hémorragie interne loolu ñaaw na et elle n'a elle n'a commis aucun crime que celui de vouloir informer comme les vaillants et braves journalistes qui sont ici nu vous félicitons nous vous remercions jaa ngeen jëf aussi vous êtes des patriotes parce que grâce à vous, les citoyens sénégalais ont de l'information. Et l'information est un droit qui est devenu aussi important que le pain, que le riz, que l'eau, que l'air bi nga xam ne moom la ñuy noyyi. kon bravo à vous journalistes et prompt rétablissement à Adja Ndiaye léegi nag dañoo bëgg ki nga xam ne mooy Aly Ngouille Ndiaye mu wax ak takk der yi ndaxte ñun citoyens sénégalais on ne paie pas l'impôt pour se faire assassiner on ne paie pas l'impôt pour nous faire On ne paie pas l'impôt pour nous faire insulter. On ne paie pas l'impôt pour nous faire crier dessus. Les violences policières, ça suffit. fi may daanelee mooy ñu bëri ci yéen seen dossier mu ngi ci kanamu yoon ñu bëri ci yéen ñi nga xam ne seen dossier nekkagul ci kanamu yoon dina dem ci kanamu yoon kon ñun mbiru yoon daf ñu intéressé. ñu am une justice indépendante daf ñu intéressé ndaxte bu fekkee dañuy dem ci yoon ñu am ay juges yoo xam ne dañ leen di manipuler ñu am juges yoo xam ne dañ leen di menacer ñu am juges yoo xam ne dañ leen di xoxatal ñu am juges yoo xam ne dañ leen di jënd ngir ñu bañ a wax dëgg waaye ñu jox dëgg ñi nga xam ne ñooy borom doole yi ñu jox dëgg ñi nga xam ne ñoo ñuy tooñ ah foog ñu jox taxaw tem mais nous voulons aussi une justice indépendante moo tax nous ne devons pas rester indifférents à ce qui se passe sur la personne du juge Téliko moo tax nous ne devons pas rester indifférents à ce qui se passe sur la personne du juge euh, Ngor Diop ndaxte Ngor Diop juge la woon juge la boo xam ne Podor la nekkoon mu jël dogal daaneel kenn procureur woo ko ne ko déet libéré ko mu ne maa bañ sidigi kabaa woo ko ne ko libéral kooku mu ne ko maa bañ ndaxte li ma li ma jël comme ndogal sama diggante ak yàlla loolu la président Macky Sall woo Ngor Diop ne ko libéré ko Ngor Diop ne maa lànk maa bañ te li ma jël comme décision moo dëppoo dëgg xam ngeen luñ ko def dañ ko jëlee Podor yóbbu ko Thiès xam ngeen loolu lu muy tekki mooy ñun bëri nañ ay dossiers yoo xam ne amuñu ci dëgg yoon dafa teg tànkam ci suñu dëgg ndekete woo procureur moo wax juge boobu defal lii ndekete woo Sidiki Kaba moo woo kii war a àtte ne ko waxal lii moo tax ñun askanu Sénégal mbiru justice daf ñu war a yitteel dëgg la duñu magistrat dëgg la am na juge yoo xam ne ndeysaan seen xaalis seen bakkan ak seen poste rek moo leen yitteel waaye ñun nous avons intérêt à avoir une justice indépendante moo tax nous devons accorder tout notre soutien au juge Téliko, tout notre soutien au juge Ngor tout notre soutien à l'Union des magistrats sénégalais pour une justice indépendante. Tatulen mbokk yi bëri na ñoo xam ne ñu ngi fi bëgg nañ bokk ci doy na bokk ci doy na yomb na bu manifestation bi jeexee suba wala gannaaw suga nañu joxante nañu woowante ñu dajeek yéen gën yaatal li nga xam ne moom mooy doy na yéen ñëpp ñi nga xam ne yaa ngeen fii te mënu leen woon jël parole ndaxte liste bi dañ ko def waroon ba pare nous sommes prêts à vous rencontrer à vous recevoir à vous écouter et à vous intégrer les bras ouverts à na parce que Doyna c'est la famille de toutes les victimes de tous les opprimés du Sénégal fi may daanale nag mooy président Macky Sall laa bëgg a waxal ñun waa doy naa ah am na loo xam ne ñu ngi koy xalaat de dinañ defaat marche dinañ defaat sitting dinañ defaat yeneen manifestation bu ko jaree dinañ dem ministère de l' intérieur bu ko jaree dinañ dem ba ci palais présidentiel ndaxte mënuñu seetaan ñuy nangu suñu suuf di nangu suñu liggéey di nangu suñu kër di nangu suñu 15 francs di nangu suñu orientation ba pare ne teg ne patt duñ ko wax li ñuy xalaat nag mooy benn bi ñun waa ñun waa doy na dinañ xool naka li ñuy defee ay campagne de boycott entreprise boo xam ne yaa ngi def sa liggéeykat loo xam ne du dëgg du yoon dinañ lancer ay campagne de boycott ñaareel bi mooy ñun ñi nga xam ne dañuy caxat-caxatee suñu suuf ñun ñii nga xam ne dañuy jël suñu forage dénk ko ay opérateur privé alors que ñun asufoor yi ñun askan wi ñoo leen dàq saytu ñu ngi xalaat bu lii continuer naka la ñuy xoolee ba dootuñu fayati l'impôt waaw tul daale si suñu suuf dinañ xool ndax dinañ fay l'impôt am déet dama ne pesum kanam borom moo koy fajal boppam ñun béykat yi ñun waa kaw ga war nañ réfléchiraat xool ndax bu ñu continuer nii di jël suñu suuf est-ce que duñu boole ci suñu xeex ne dootuñu fayati l'impôt mooy la grève de l'impôt parce que nag ñu toog seetaan ngeen ñu nangu suñu suuf alors que ñun fa lañ juddoo suñu maam fa lañ juddoo suñu maamaati maam foofu lañ juddoo beneen bi mooy ah lii bu continuer élection locale bu jotee dinañ xool lu ñuy def de ndaxte nag mënuñu votel ñoo xam ne dañuy sàcc suñu suuf ñu votel ñoo xam ne dañuy nangu suñu ndox mënuñu votal ñoo xam ne ñuy xañ orientation mënuñu euh, mënuñu votal ñoo xam ne ñuy sonnal ñun étudiants orientés dans le privé mënuñu votal ñoo xam ne dañuy dàq suñu kër donc ñun waa doy na itam war nañ xool élection locale yii nu ñëw élection législative yii di ñëw état du Sénégal bu ñu delloowulee suñu suuf bu ñu delloowulee suñu kër bu ñu delloowulee suñu forage bu ñu delloowulee suñu liggéey bu ñu delloo wulee suñu 15 francs bu ñu delloo wulee suñu orientation ah président Macky kenn du ko fatel APR kenn du ko fatel Benno Bokk Yaakaar kenn du ko fatel mbokk yi amoon li ma leen di wax dinañ continuer gëstu bi dinañ continuer xalaat bi pour xool yan yeneen ngànnaay la ñuy yokk ci ngànnaay yi ñu am ba pare ngir président Macky Sall saafara li nga xam ne mooy suñu jafe-jafe jërë ngeen jëf. te abonné ci seen seen Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran